tey yëngu na ak démb xale yaa ngi yëngal ñu ngi yàq ngay lutteur di porteur de voix tey ban message ngay lancé jëmale ko ci ndaw ñi ak ci réew message bu may lancé rek sama rakk yi sama mag yi sama papa yi kilifa yi diine yi nañ ñaan yàlla jàmmam Sénégal parce que fii jàmm rek moom moom fi xaj leneen xaj fi du dul jàmm ñaan gouvernement bi di ñaan képp koo xamante yaa ngi ci gouvernement bi nañ indi jàmm xale yi nañ bàyyi yàq yi parce que bu ñuy yàqee ëllëg ñun ñooy jóg defaraat hmm. kon donc na ñëpp bàyyi li ñuy def ñaan yàlla yàlla def di ko métti di ko métti lu baax a baax a baax ndax mooy li ma la wax rek Sénégal dara xaju fi lu dul jàmm hmm. ndax bu bakkan demee hmm. bakkanu Sénégal la hmm. kon donc nañ ñaan jàmm am fi di ñaanal ñëpp yàlla defal leen jàmm képp koo xam ne am na loolu dañ sa biir xol yal na ko yàlla saral ci barke Seydina Mohamed yàlla na fi yàlla def jàmm kilifa diine ñaan leen ci ñaan leen ci ngir yàlla war a suuli waa Touba waa Tivaouane waa Kaolack waa Ndiassane kilifa diine bu mu mënta doon ñi ma limul seen turam géejewaay tamit gis nga yàq baa nga fay am tribunal ba ñëpp ngi yàq lépp maa ngi ñaan yàlla yàlla na fi yàlla def jàmm ngir yàlla war a suuli na kilifa diine yi ñaan ñu delluwaat si xel yi ñëpp nekkaat ci jàmm ndax jàmm rek moom ba mu fi war yàlla na fi yàlla def jàmm amiin jaajëf mbër